alhamdulilah ñu ngi nuyu mbooloo mu tedd mi fi teew yëpp ñu jiital Cheikh Baye Mouhamed Nazir Ibrahima Niass ne mooy kilifa jotaay bi di ñu teg Cheikh Baye Baye monsieur Aboubacar Niass di Cheikh Mouhamed Nazir di ñu teg Cheikh Baye Talibé Niass

am amat man-man aku bebu, ci li diine ren yal na yóbbu Allah yal na taxal ñu corona bi fi nekk ba mu Allah sama xarit Tabedu Dumbuya Dumbuya xam ne sama xarit ak bu ci nawet bi passé am na ci luñ doon am na ci am na luñ doon dox mu jafe lool waaye gis nga yàlla sottal na ko kon maa ngi lay ndokkeel ci loolu di ndokkeel Cheikh Fatim waaw di nuyu suñu jaatige di suñ kilifa Alaaji Keba Cissé nga xam ne ci sax saxu neema yi la ko mu nekkoon ci taxawu kër gi taxawu Cheikh Mouhamad Nazir booba ñi nekk mag tey booba gone nañ mooy la ko sëriñ bi waxoon mu topp ko topp ko topp ko ba mbir mi egg bi tey kon kooku ñu ngi koy nuyu bu ñëwee ci jeeg jotaay nag dangay foog ne sax bokk ci bi mu ngi mu ne ba léegi teggiwu tànkam ci loolu ak soxnaam aji Fass Cissé waaw loolu ak yu magamaat seen mbokk yëpp biñ gisee ne alaaji Keeba moom ci lii ñoom ñëpp ci lañ ñëw jàppale ko ci loolu kon sëriñ bi wóolu woon na ko lool su doon ab soxla rek dem nañ imaam ana sa waay xam nga sëriñ bi rek moom biram te moom Cheikh Mouhamed Nazir jëflanteeg moom muy joxe moom biram yëpp ci tàng tàng bi mu ne sa waay dara nañ ko mbëkk rek mu jeex waaw moom pour xaar ba suba soxla ne xaar ba suba déedéet nañ ci la nekk kon ñu ngi ko ciy sant sukkuram ñu ngi ko ciy gërëm di ko ñaanal yàlla waaw di ndokkeel nan la ma ndokkeelee seen xaar yi maa ngi ndokkeel sama rak Cheikh Habibatu Mouhamed Nazir Niass sama rakk la sama xarit la damay wax ne doomu Mouhamed Nazir yi sama sëriñ lañ waaye moom sama rakk la Cheikh ma Nazir seede na loolu ndax seen yaay Seyda Halima ñu ñoo bokkoon ne ca daara di jàng bokk bépp kuréel bu ñu def ci école bi rek ñun ñun ñoo ñun ñoo ci doon bokk école bi buy tukki ñuy ndeysaan buñ yenn yi buñ daan dem mbir mi jafe am oto sax dafay jafe mu ne cëy bàyyi bàyyi ma gàcc liggéey bu toll nii te su ma buggee doon mbiram oto jafe ma mu ne bàyyi xool ma waaye defe naa loolu gëj la ah mu jógee bu jógee taxaw ne nañ dem kenn ku ne day ñëw gaar sëriñ bi oto baa sëriñ bi oto bi sëriñ bi oto bi bu ko defee rek mu xaal mu ne xëy sama wàññi mu suma nax ma ne bàyyi waxoon na ko Nadiiru del bëgg may def mu ne Nadiiru di ko présenté ne man diplôme yi am mu ne ma man may sa diplôme kon kooku moo ñu seen axat yi ak moo ñu Cheikh Baye mii moo ñu Cheikh Baye Baye mii soldat la ci soldat Baye mos na dem gannaaw kon nag bu fekkee ne Cheikh Oumar Khady yàlla may na ko mu daal di gorowante ak comme ni ko sama jarbaar wax Alaaji Ousmane wax dëgg yàlla ku ne bëgg na loolu ku ne dox na ndax loolu indi war na Nigeria ñu ne ne leen ma bàyyi may jabar moo indi Mauritanie moo indi Ghana moo indi fu ne ba tax na doomu bàyyi sëy na ci réew mu ne boo demee Amérique ñu ngi koy sëy Mauritanie ñoo ko nekk Nigeria ñoo ko nekk Nigeria ñoo ko nekk waaw Nigeria Ghana umma mooy xeet bi waaw ماما ممدم نبني أول حوص واحد كرما كذلك دهم بالخير فيهم عما كذلك تدكلي وفرفر أتوا كذلك تنجرى ومن فيد رووا وقوم كرما حب الشنغا فلا قاو وولوا أخذوا عن الولا وجاءني موسى كذلك يربى وغمبرا وجاءني من برن والمرامي أو كرام رغبة تلاقي يتخيل ديوتي نيفو دي لباي لبن نيفو topp leen ci gannaawam mu leen di woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di leen tegtal yàlla di leen def lépp kooku kooku mooy Cheikh Ibrahim Niass kooku mooy maamu ñi fi toog tey mooy seen maam macha allah ñu ngi ñaan yàlla barke boobu yàlla bi des te barke boobu yàlla ne ci kër gi te barke boobu yàlla ne ci réew mi waaye yàlla nekk ci àddina bi yëpp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi kontaan lool jotaay bi ni mu demee ak jotaay bi ni mu fii donc tànk réew mi nit ñi dox lu baax di defar lu baax yëpp ñu ngi tey loolu li ko waral mooy baax baax moom mooy baax mooy baax rek yàlla ñu yàlla may baax te loolu yàlla mayoon bàyyi ñaar ba fu jublu rek mu ubbi ba fu mu rek mu ubbi waaw kon nag ah Fadi ñu ngi lay doxal ci loolu yàlla saxalaat la ko. doomi julli ñu tuddee ko Fatimatu yàlla na barke yàlla na nekk maskumatun mina zunubi yàlla na nekk xéewal ak jàmm yàlla may ko am may ko xam-xam may ko fulla may ko jaww may ko taar ci barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla am na lu lu matal yàlla bu yàlla def soxna Habibam ñu lay ndokkeel bu baax a baax bu baax nga bu yaru nga bu mu topp sa yoonu bàyyi nga mu respect sa mag yi la mu respect sa rakk yi nga wax dëgg yàlla yow boo sëyee neema rek wàcce nga ndax neema nga yaroo li ko fiy indi lu lu taw la moo ma moo ma na ma yàlla baal sëriñ bi moo moom moo fer rek ñu indi leen mooy atam nañ ci tout Sénégal demoon wol demoon Coupe d'Afrique Égypte akum bokkaane bu kii bu jógee rek muy daagu ci mbedd mi man may ko kànde man may ko kànde sëñ bi mu ne waaw kii kan la ma ne ko bay bay la de eh ko kànde yow yow bal bi ngay mbokk du balu ko kànde ko ci yow beneen bal ngay mbokk xanaa bi jàngee bi mbokk na bal moo xam ne boo ko tag balu ko kànde waaw bu ko defee bàyyam ne ko jël ko jël ko nga yóbbu ko ci daara ji bu ko defee noonu laa koy mbuuxaane rek yóbbu ko ci daara ji ba tey macha allah bi mu jàngee xam ngeen xam ngeen fan la bàyyi ko macha allah ñëpp kontaan nañ donc kàddu loolu ñu ngi ciy bëgg ñu ngi ciy kontaan di la jotal sa nuyu ak sa ndokkeel sa goro Cheikh Baye Mohamed Nazir ak Cheikh Baye Mbaye waaw. bu ko bu ko defee Cheikh Baye mu ne mu ngi lay ndokkeel di rakam. di ndokkeel jotaay bi yépp ci liir bi jiddu mu ngi koy ñaanal yàlla te di la wax ne ba utuma ni lan amaam xaati sur rek seen bët dañu ci yow da nga xaati xaati sa goroy ñu ne seen bët yëpp ci yow ni nga yoree seen rak ak seen mag neex na leen rafet na anta ala dar yaa ngi jaar ci yoon bi kon yoon woowu yàlla la ko yàlla gën a jàppandalam yàlla yàlla gën a def jàmm seen diggante yàlla yàlla yokku boole seen am am ak seen man-man sa yaay tam fàttewuñ ko sa yaay bu baax la ñu ngi koy gërëm ñu ngi koy sant ñu ngi koy ñaanal yàlla ndax woykat bi ne la hiyal axlaaqu talbut mukannabaati iza suqiyat bi maa'in mukramaati kon wayjur yi def nañ ci yow sa sëriñ def la ci yow say goro def nañ ci yow réew mi def na ci yow def nañ ci yow sa xarit yii doon wax ñëpp def nañ ci yow xam nga ne tey boo peese woon sa bopp tey xam nga ñaari kilo ñetti kilo ngay topp waaw ndax li Cheikh El Hadj Ousmane wax ak ñi wax fii yëpp liñ wax ak ñoom Baye Baye li ñu wax xam nga ne macha allah nekk nga ñoom nekkin bu rafet ànd nga ak ñoom ànd bu rafet ànd bu nekkee ngir yàlla ñëpp ay jëriñ. bu nekkee nag ngir nafsi nafsi li si am na li doon wax sama waay dara buy ànd pour nafsi nafsi nay ànd ngir ñëpp jëriñu su boobaa man danaa nangu ànd ak yéen waaye bu dee benn boor jëriñu beneen boor ba des ma ne sa waay man ma des fa ma desoo rek ndax dañ ma naan te kenn du ma doj kon wax dëgg yàlla sa xarit yeeg sa am di jàmm yëpp mu ngi leen di gërëm mu ngi leen di sant mu ngi leen di ñaanal yàlla di ñaanal ñëpp jotaay bi gudd na waaye jotaayu jàmm la jotaayu sant yàlla la kon ñëpp ñu ngi lay sant yàlla Cheikh Sadio yow it ñu ngi lay gërëm di la sant di ñaanal ñëpp waaw dëgg daawana alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu aleykum wa rahmatullah رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب يا علي يا حبيبي يا حليم يا علي انت ربي وانت حكيم حسبي ونعم رب ربي ونعم الحق حسبي تنصر من تشاء وانت العزيز الرحيم نسألك العافية من الحركات والسكنات والكلمات والجنادات والخطرات من السجود والظنون والأوهام آل في للقلوب عن طالعة الغيوب لقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فجددنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت بحر موسى وسخرت النار لابراهيم وسخرت الجبال والحجر لداوود وسخرت الريح والشعب من يوسف وسخرت العمان وسخرت قليل لمحمد عليه الصلاه والسلام وافتح لنا كل بحر ولك في العبد والسماء والملك والملك وبحر الدنيا وبحر الاخره وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء افتحها يا انصار افتحها يا انصار افتحها يا انصار انصرنا بين خير الناصرين وافتحنا بين خير الفاتحين واغفرنا بين خير الغابرين وارحمنا بين خير الراحمين واصرفنا بين خير الراشدين واهدنا ونجنا من اقوام الظالمين وهبنا ريحا طيبه كما هي في علمك وانصرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمر الكرامه مع السلامه والعافيه في الدين والدنيا والاخره انك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا امورنا ما راحه لقلوبنا وابداننا والسلام والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسحهم على مكائدهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فإنا يبصرون ولو نشاء لمسحنا على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون يأتون القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم وتنذر قوما ما أنذر آباءهم قوم غافلون لقد حق القول على أكثرهم لا يؤمنون وجعلنا في اعناق اغلال فهي الى الاذقان فهم مخبقون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاحصينا وهم لا يبصرون ساءت الوجوه ساءت الوجوه ساءت الوجوه وعنت الوجوه الحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما فاصل من حميم ناسقا مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حميم حميم حميم حميم حميم حميم حميم حب الامر وجاء المخلوق علينا لا يصرون اي من تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب وقابل التوب شديد قابل القول لا اله الا هو اليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسر سقفنا كايا يا حمايتنا حميم يسقى حمايتنا هم الله وسمع العليم ستر ما مقبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل القرآن المجيد في له محفوظ والله خير الحافظ وأرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل كتابه وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنت بالله واعتصمت بحول الله وتحصنت بحسن الله وتوكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الخالق الأكبر وحرف المانع مما أخاه وأحذر لا قدرة لمخلوق مع قدرة الخالق يلجمه بلجام قدرته أحنا حميصا أطمى قميصا وكان الله قويا عزيزا نحن في كنف الله نحن في كنف رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن في كنف القرآن العظيم نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في باطن نسيرة ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظاهر نسيرة ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تحول بيني وبين الساعة السوء إذا حضرت ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تدور بي صورا كما دار صورة مريم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان من أنجم كل متمرد بقدرته سبحان من نفسه به كل شيء حكمه سبحان الله العظيم وبحمده عبد حرفه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته ومبلغ علمه وآياته اللهم صل على سيدنا محمد ساعة كلمة والبركات ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق بالمقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح كلمة على الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدر المقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح في أربى الخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق ولا والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدر المقدار العظيم صلاة تفتح لنا بها ابواب الرضا والتيسير صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعصير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعصير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعصير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا مولانا فنعم المولى ونعم النصير كما أبرأت وسدر بالدم شراحته وأطلقت قريبا من رفقة النمل من يعتصم بك يا خير الورى شرفا